yal na yàlla gërëm ko qaala mu ne qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yonentu yal na yàlla saxal ci moom xéwalam ak muccam ne na man jalasa fi majlisin képp ku ci jotaay fa kathura laxatuhu wax ju amut njëriñam bari fa ñi ne laxatu mooy takallama bi ma fihi ismu wax na fa wax joo xam ne bàkkaara nga ca ñi ne al laxatu al huzlu al huzu min al qawl wa ma la taila taxtahu fa kasuraj bari laxatuhu waxi neenam wax ju amut njëriñam wax joo xam ne bàkkaara nga ca ca jotaay ba fa qaala mu wax moom waaja mbaa ndaw sa jogam min majlisi dalika ci jotaayam boobe subhaanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an laa ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk subhaanaka tudd na ma sak sell yow sama borom sell nga ci bépp matadi subhaanaka tudd naa sag sell allahuma yow sama borom mi ci tur yu rafet yi ak melaw yu kawe yu sell yi wa bi xamdika ak tudd wa bi xamdika ak ci sag cant gis nga ñaan gi boole na xeetu jaamu yàlla yépp wane subhaan nangu nga tudd nga ne sama borom féex na ci bépp imperfection imperfection bépp matadi wane bi hamdika solal nga ko mbubu matam yépp moo leen moom subhaanaka allahuma wa bihamdika wala nangu nga seede nga sol gim leen sol nga yow mënuloo bay solal yàlla kenn du ko solal waxin la tabaraka wa taala mu subhaanaka tudd na ma sag sell allahuma yow buur bi ci tur yu rafet yi ak yu sell yu kawe wa bi xamdika ak ci rek sant an laa ilaha illa ant maa ngi seede ne yow rekk yaay yàlla ashhadu maa ngi seede an liy mbir tey mbir laa ilaha déeg buur bu yeeyoo jaamu jaamu ga di jur njëriñ ñàkk ga jaamu di jur lor illa anta ndere yow astaghfiruka maa ngi sàkku nga jéggal ma waatubu ilayka maa ngi tuub dellu si ci yow yonentu nee na kenn du toog ci jotaay wax fa loo fa warta wax lu dul ne ba ngay jóg ca jotaay ba lu jiitu ngay jóg wax nga ñaan gi kenn du def lii illaa xufira lahu ndere jéggal nañ ko maa la nga xam ne kaana nekk na fi di doon di xew fi majlisihi ci jotaayam zalika boobu maa xam ne kaana xew na ci wax jum warta wax fi majlis ci jotaayam zalika boobee xadis bi rawaahu solo na ko tirmidi imaamu tirmidi wa qaala mu ne xadihun xadis la xasanun ju rafet saxiixun ju wér moo yenentu sallallahu alayhi wa sallam daa ko tëjee jotaayam yi moom mi nga xam ne mooy sangub woy dëggu yi mosta wax caaxaan mosta jëw terewut toujours dafay gis ci gis ci boppam gàttañlu ngir adabam ak yàlla tabaraka wa taala xam-xam yi di ko tuddee kafaaratul majlis ne bokk na ci aada aadaabul majlis su borom dee jóg def ñaan gi def tudd yàlla gi mag ñi bu ñu paree ci seen jotaayu jàngale sax wax ko ngir gis nañ ni rek xëy na juum nañ ci wax ju ñu askane ci yonant wala ci firi wuñ ko firi wala sax seen lixlaas manqué na wala wala wala nañu yàlla may yàlla subhaanaka allahuma wa bihamdika ashhadu an laa ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaarihi al-azimi amin assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk yi dégg sunu kàddu lii xew at mu jot muy xew-xewu lislaam moom lañ leen di fàttalil muy annuel dîner fundraising bu mag boobu nga xam ne mu ngay xewee ci Staten Island ci taxawaayu ICFA buñ ko waxee nag sunu xel yëpp def ci mun Muntaqa saako borom xam-xam bu mag bi nga xam ne tey mooy jàngal ndaw ñi di jàngal mag gi ki miin Makka ak Medinatul Munawwara nee naa la mun Muntaqa saako mooy éviter mbokki jullit yëpp ci Staten Island ci jumaa ju mag jooju nga xam ni mooy masjid al muhajirin wal ansar nee naa la mu nga nekk ca 740 Delafield Avenue Thiès saatanaay leen nee naa la masjid bu mag boobu imam Mountakha Sakho ku ne xam ko ci lislaam moo tax béréb ba dem nañ ba bëgg nag building bu bees tàq boo xam ne nii bu ñu moom la ngir lislaam bi mbokk yi diine boobu ñuy wootee muy diine fundraising nee naa la ñëwal joxe sa alal waaye ñu servi nag nga lekk mën a déglu sa diine waaye jël la nga am def ko ci yoon yàlla imam Mountakha Sakho bis ba si na kañ lay doon yemook samedi décembre 20 2023 ah mbokk yi nag heure ba day teel a tàmbali ban heure lay doon cinq heures bëgg na ñëpp teew ca béréb ba ndax su ko defee la ñu fay dajale ñu mën koo dajale daal di mën a teel a delluwaat nag ndax ku ne xam na ne satan ay leen lay xewee kon mbokk yi lu ci waay am te bëgg ko cee def te sori jëlal numéro zel bi ma lay jox 347 zero 7703 loolu mooy numéro zel bi 347 265 7703 mbokk yi nee naa la bëgg nañ building boo xam ne nii tey képp koo xam ne nii tey ñëw nga wala nga bëgg a jàng sa lislaam da mën a ñëw ci béréb boobu moo tax ñuy woote fundraising boobu kon mbokk yi jël leen ngeen gaaw ñëw def seen alal ci yoonu yàlla Imam Mountakha Sakho woote na ci taxawaayu ndimbalu ICFA kon nag mbokk yi bu ko kenn tardé bis noonu woo nañ leen ci te yaakaar naa képp kuy këru diine te nekk ci cinquante états yi rawatina ci biir Amérique rawatina New York City ñu ngi woo ñëpp nag rawatina consulat ak association bépp organisation bu nekk ci dëkk bi bul tardé bis boobu le 23 décembre fii ci Staten Island